nit ku ko fi def rek bu ma ñëwee naa jaase ndax mu simple ci wàllu wàllu dëjëg wàllu néew wàllu lu deme noonu màggal bésu ku dem mu dellu si nga di ko màggal yooyu sëñ Babacar Sy moom ci sensible boo demee ci tëggi aawam ma nga ca sët yi ca cawleen te dafa doon faju rek yàlla indi dogal moom bu mu ñëwee ñun kenn du ko yóbbu Tiwaawan kenn du ko yóbbu lu dañ ko suul nit fu mu ruuxam rote rek nañ ko fa suuf ñu jéem jéem wax dañ ko yóbbu ci wax ni ëpp naa dañ ko yóbbu Louga mu ne ëpp naa def ba demee soxna Fatima ci si muy taw Seydil Hadji Malick muñ ci armeel yi Louga yi dañ ko waxee dem ne nañ ko def foofu unique bi te mu ëpp valeur parce que ñi ñëw ci armée yi daay ñaanal néew yi te dana ca bopp kiñ ko dénkoon muy ñaareelu soxnaam juróom ñaari weer la am ci loxo yàlla moom mu ne nañ ko yóbbu ci armée moom noonu la ko yàlla bindoon ci wàllu ku si jigéen soxna yi tam ah gan jënd ñu jënd nag wala xar pour toggale ko gan ñi ànd li ëpp na kii لفتلكو سهنا رقم دي رضي الله عنها سهنا عملون ويأيخي الحبيب أتسيد أحمسي بتنكا ومن الأليمين دي بلون لها تيرجئي في جلما من أبنا كتابا في جرمي ريكي دولة مرشي لمن بكتنا جلما ñu dem ci marché booba Dakar nga limu na ne gis ñu dara ñu dem jënd ay xar waaye góor gi bu mu na rey bay dañ jënd ay xar yóbbu ko ci kër góor gi amul jaxte rey ko fa fees ko tojat ko def ko ci ay bañuwaar ak booli ñëw ni ko lii danañ cokk ca marché waaw gis góor góor am na noonu la ko yàlla bi Euh, anniversaire yi bi ñu ko tuddee man ne déedéet seetal beneen moom parce que moom mos ko nangu nanguwu ko ci seen alimaalik ci benn soxna wala benn mbokkam nan la ko yàlla bindoo même si di Ahmed daf ko gàntal ñu ëpp naa def ëpp naa def tey xoos la ëpp naa def loolu naan sa deret la moo tax nag bi ma waxee loolu ma ne ko beneen bu dul anniversaire sama nangu ku ko te mu bañ nag jam-jam sëriñ ale lay bañ ma ne ko kon nag seetal bi mu daal seen rek ni ma seet nañu ñu def koo benn hommage ma ne waaw kooku moom mën na nekk parce que wëcc na fi nag luñ ko mën a rendre hommage waaw tabaarakallah ñu nekk ci nekk ci nekk ci yàlla dogal diggante bi tam sama yaram xaw a am tuuti yëg-yëg ma dem seeti docteur yi waaye ba ma demee itam asmalik du sëriñ Cheikh moo ma téléphoné le góor gi daal nee na buñ tardé bésu sëriñ Mansour bi na nga ñëw teewe ko encadré xale yi loolu moo tax ma dagg sama traitement ñëw tey sax li tax mu wax ko ma ko xam bu ma ko tardé woon de ñu bari ci Sénégal لبيت وخلص لي انك بتعب ازيك يا ابو ممكن من الوجع يا لا لا لا هاوي ما نقوم دي ما تهمني ما بفرق عادي بما يوي ما تلف انا ما بعث ما نقول خل خليفه بين كل يونا لي واو تيلي كم تلمي واو نيرا بول فاتي لي نكون غدن manfaatale xale yi loolu tax ma dayal man na dëgg dafa am bés suñ baba kër sa rox jëlaat ñu di ko def boole déedéet dafa am benn mbedd bu ñu tuddee woon sëñ bi Hadji Malick Thiès commandant de cercle bi fa nekkoon lañ ñaan ko mu ñëw dëgg Liban Euh, mu gàntal waaye eh, comme moom tubaab la te xel ci Alaaji Maalik rek moo tax mu di ko tuddee mbedd bi ñaan la nga ñëw teele ko teel a demal ah, muy jigéen ñu mën ñu teg moom boobu noonu baax na ba ñu demee nag ba ñu tudd dagg ribam bi keroog Serigne Cheikh ngi sol benn pompalee bu noir bu rafet teg ci bu weex tàll ak benn bonnet marocain ñi ñëw na toog ci salle bi góor gi seen catu pantalon bi ba ñu ñëwee li ma jëkk laaj ni Cheikh solo <laughs> ma ni ko wax moom la solo bu mu ko sonal si ma ñëw ma ne ko ak ah, sama toog gis na sa tubéy bi ak pantalon ñun lu mu ci wax ma ne ko nee na bu ko sonal si mu ndax dafa araam ma ne ko ah xamal si la wax nga ma de wax naa mun dama lekk ko man ko man kay laaj bu ma ci fekk yow yow nii la ma daal wax naa la waaye muy yëg si rek góor gi mel na dafa dégg liñ doon discuter dama dugg si rek mu ne wax li ma la wax ma ne ko waaw mu wax ma ree ne wax ma ne ko neen ndax dafa mu ne ah déedéet araamul waaye xam nga Sénégal mënuñu doomu sëriñ di ko sol bu ko solee man nañ ci wax lu leen yóbbu safara mu dawal leen safara soose rek laa ci jublu wax na dëgg ndax Sénégal loolu rek la wax ñu seen yoon nekkul xamuñu nu mu dem ñu lu ca am waaw loolu mooy jikko waa senegal moo tax mu ne bu mu ko tàggee ma ñëw fekk naa ci organisation bi sama njaboot yëpp a nga la ma am it ñu ko jox leen leen boole leen ak ñi ngeen ñu continuer organisation ba euh, mu dina bis bu am solo ndax dafa dajeeg bis bi nga xam ni sëñ Mansour radiyallahu anhu ni ngeen ko waxe euh, moom Serigne Cheikh juróomi weer lañu bi toll ci jàng mi fekk na ko mage ba jàng leetu waaye euh, soxna su baax sii ci wetam soxna asukan ni ko man daal nekk na ma loolu doomu soxna di fi ñëw di bind ay leetar ak def xasida te sa doom du ko tontu bàyyi nga jàngale waaye il faut nga dal ci mu daal di dellu ci njàngale waaye sëñ Mansour sëñ Cheikh sëñ Saliou Sarr ñoom ñett rek bu leen di jàngal nag day mel ni kuy dem xale ndax day takk takk liggéey mbubu garab fas ko ci gannaaw wane dugal ca njàng ma baatu ndax yàggul te lu doom mu soxla xam rek xam mu mu doon ñaari daara daara suñu Mansour daara suñu Cheikh suñu Cheikh daw daara ma dem Dakar wax ak moom ma ni ko mais ñun jàngatuñu te yow lañ ñu la dina ñëw ma ñëw ci sama bopp ma ni ko ñun jàngatuñu waaw ah. mun ma ah, mooy la et que mi ngi boole la toog mais gën Dakar ñu waaw ba mu ñu sëñ Cheikh ne xam nga lu ma wax moom ñëw ni man da nga ma doon boole góor gi man ko waaye dañoo bëgg a jàng mun na leer nekk tax ma daw jàng sëñ moom suñu ubbi daara mu ubbi daara talibé dootuñu am jàng ci benn xale ñaari daara loolu ko tax ub daaraam daw muy ma xam naa kër gi dañuy daal di def ko muy jëlee kii jaar fi kii jaar fi mu ne ma loolu nag du ma ci nga defee nag kon tabaarakallahu mu di bés bu am solo ñu mu jàngaloon man ni ca la bokk bari na ay téere yoo xam ni suñ moom suñ sii moom ko jaayal <clears throat> yàlla dogal ñi mu jàngaloon dem ba ci biir ñu ni ko dañ la bëgg wutal bés bu ñu ñëw daje muy sa bésu rendre la hommage ci ni ñu jàngale mu d'accord ñu ko jox ñu tur mu jox ñu turu daayiratu Muntadibin li taalimu ulumi diin ak mu jot fu taalibe nekkoon rek daa bàyyi la ngay def ñëw ñu dajeeg moom mu sànni leen ni kàddu encouragé leen wax nu nu nu war a mel mënu fa jógee benn saan ci mujj yaram yi mayetu ko mu def ko waaye mu ni ma waaw bu ñu dajee dinañ ñëw toog waaye yow nga waxtaan ak ñoom su bés bi jotee mu ñu moom la papa yoon wax dafa am bés ma dem moom am fu ma demoon dama demoon benn mission te waxtu wi jot na te ñoom ñu daal di bëgg profité mu ne kenn du ko def ci réew mi daal di jàpp boobu parce que ñu ba ma ñëwee nag mooy xaw ma guddi yàlla ma ne ko waaw waxtaan ma moo xaw yàlla naa ko demal ma waxtaan ak ñoom su demee bay jeex nga yëgal ma ko ma ñëw ñaanal leen ñu dem nag ba tey mu jógee fi waaye kóllëre gi ba tey mu ngi fi mm-hmm. ñu ne ah sëñ Mansour de nekkatul waaye nag ziar bi moom danañ continuer di ko def mm-hmm. bi ñu continuer di ko def itam maa ngi ñoom ci biir man ngaa ñëw ci biir boobu Cheikh Tidiane muy taw mu toog ci sama wet moom waxtaan ak mbokki tari bi fàttali leen ñu ñaanante yàlla dem bi ñu d'accord yoon nag ci def li ñuy tudd anniversaire ñu noonu nañ ko dugal ci biir ziaru daara yi ñu ko ci dugalee tudde ko neneen mu dul anniversaire donc anam accident moom sëñ Babacar Si daf ko daf ko asa complètement ci mbiru kër bi mm-hmm. ñu dugal ko ci la ñu daje lancé appel pour que ku gëm sëñ Babacar ak Alaaji Maalik rek ñëw fekkee alhamdulilah ñi mën a ñëw ñëpp yow yal na leen yàlla mm-hmm. mu di bés nag bu am solo benn jataay la waaye lu bari dana fi fajootee